mbokkee ndexnoot yi safoo setaan AGT News dalee nag jàmm ci xibaar Cheikh Abdou Bara Dolly àdduna ci li nga xam ni moom mooy ñeel soxna ndate Cissé mi nga xam ne moom moo jël concours international bu récital du Coran moom nag nee na kookee nga xam ne moo di soxna Ndaté elle mérite comme les lions du Sénégal d'être décorée et reçue par le président de la République Macky Sall nee na nag la nga xam ne defal na ko gayndey Sénégal yi jox leen alal ju bëree bëri ba noppi itam tegal leen ci ay terrain ak yeneen yoo xam ne les coupes d'Afrique des nations war nañ ko koo defal moom ndax concours ba nga xam ne gagné na ko nekk na boo xam ne international la te dafa jëm ci wàllum diine te Sénégal gi kat ñëpp xam nañ ni c'est à quatre quinze pour cent de musulmans te nag drapeau du Sénégal moom la fa yóbbu woon kon lépp loo xam ni defal nañ ko gayndee Sénégal yi war nañ ko ko mën a defal moom soxna Naté Cissé mi nga xam ne ndaw la jigéen la te ba noppi itam nekk jàmbaar ci lislaam ndax li nga xam ne def na ko nekk na loo xam ni mbokki internet yi safoo seetaan AGT news abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu te wóor